asalaamaaleykum alaikum, bonjour, yi téléspectateurs. léegi téléspectateur de Dakar instant tey nak ñu ngi fi ci Blaise Senghor nga xamné culture Le suñu waxé culture blesse Senghor art et culture sur toutes ses formes kon gaay on vous demande de nous suivre. comme ni ngeen ko nous nii lay démé avec le festival Ndaje troisième édition.

man, man Californië, Nee, man, avant man dekken een fee. 2001, ah, just 2007. Man jangen Wolof Chimbede. Universiteit Chimbede. Man content, delo at Senegal. Senegal, wow, nerna torop. Nerna torop. Koer de dance, nerna. Am ne chosan cultuur, Senegal. Yip, chip. ci biir lépp lépp ci biir. waaw waaw gis nañ ni paa yi def ngeen ko naajement rafet na mais yow ban woote ngay woote pour gars yi dellu si waat jàngaat cosaan ñi nga woo élèves yi ñu ñëwaat woo population sénégalaise yi gis nañ ne américains yi léegi dañu jël culture Sénégal di ko def yow ban ban xalaat nga si am. xalaat moom bu ne yëpp ñëw na fi jàppale jàppale culture Sénégal non. Papa jij डेफ taille chaque année après commence en janvier, non? dienen yo buddy buddy buddy. Amna poor élèves debutant, moyen, man les fetchene, man mac man open opene wand at. Me fetch ak African, dafaner tora,

waaw boo gisee ma organiser lii dama gis ne saa yu ma ñëwee vacance damay ñëw xool euh, dem dellu ci bala yi di xool la ma fi bàyyi woon ndax mi ngi fi ba léegi mais damay gis ne euh, bala yi léegi dañu gën a dellu ginnaaw bon amatul euh, doole ba mu amoon bi ñu ñun bi ñuy nekk bi ñuy jàng looloo tax ma jël initiative bi pour doole laat fecc bi may jële ñi nga xam ne mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb di fecc ñi nekk fii Sénégal ñi nekk Europe ñi nekk euh, États-Unis ma boole leen ñu ñëw fii pandant une semaine pour ñu jàngalaat xale yi ndaw ñi fi nekk parce que comme mag ñi nekkatuñu fi euh, nekkatuñu ci groupe bi moo tax daal ma am initiative bi euh, delloo siwaat mag ñi pour ñu ñëw jàngal xale yi. gis nañu fi léegi léegi léegi nii ay danse yoo xam ne. depuis sank ba léegi gars yank fi depuis trois heures gars yi ngi fi di def mais yow enseignement bobu non nga jig lan su si li nga mais yow lan moy lan mo lan mo la jox waaw li tax ma gis ko ne aar dafa gi ginnaaw parce que ñun biñ koy jàng dañ fi fekkoon mag ñoo xam ne dañ ci am fullaak fayda bu ñëwee répétition saal boo dem ci saal ñi day fees del day mel ni spectacle nit ñi dañuy jóge fu nekk di ñëw di seetaan mais bi ma ñëwee jaar ci saal yi mais damay gis ne nit ñi euh, seetaanatuñu leen sax même da ngay jouer spectacle fii pour free pour bale yi doo sax ñu ñëw seetaan te ñun bu njëkk répétition rek day fees boo wootee spectacle day fees ñi ñi dañuy koy feesal euh, en même temps may seetaan fecc euh, fecc yi fecckat yi fi nekk bon ñi ñi ngi lu mais dañu yàq paa yi parce que euh, mouvement de danse yi ak pas de danse yi dañ koy yàq parce que ñi leen ko jox ñooñu ñun biñ leen fiy bàyyi ñoom mokkaluñu bon ñun bi ñu demee ñoom ñoo fi sosoon moo tax ñoom ku ñëw ñoom ñoo lay jàngal looloo andi euh, li ñuy jàngale setul parce que ñoom mokkaluñu woon euh, ñun biñ leen fi bàyyi moo tax nag bi ma gisee loolu xam ne aar bi mi ngi yàqu fecc bi mi ngi yàqu may jëli ñi nga xamante ni nii ay fecckatu cosaan lañu ñu xam cosaan euh, pour ñu dooleel aar bi boo gisee xadim yi tey jii Casamance la fi joxe tef moom ya bi muy xale ba léegi mi ngi fecc xam na ko du yà du yàq fecc bi bon gis nga nam ko joxe boo seetaanee sax di nga gis ne américaine yi ñëw ak tubaab yi ñëw ñun ñi leen di jàngal fële boo xoolee différence bi ak sénégalais yi jël classe bi tey di nga gis ne ñoom amuñu problème mu fecc fecc fecc parce que ñun ñoo leen jàngal ñun xam nañu lan la ñu jàngale mais ñi fi nekk. ñun ñi ñu fi bàyyi woon ñoom ñoo leen jàngal moo tax ñoom ñu am problème mu fecc fecc bi xadi doon joxe boo doon boo seetaane vidéo bi di gis ne tubaab bi euh, neexu ba neexul ma ñoom ñoo doon fecc fecc bi waaw ba ñu woo bu dee Mali itam ñu woo suñu yaay tàkkoo moom mi ngi soraanoo ba léegi moom it mu ñëw jox leen euh, luy jéembe Issa Sow moom nga fi seetaan sànq moom it ci ancien yi la woon soraanoo mi ngi Allemagne moom it day ñëw fii Euh, bu ma ko wooyee day ñëw moom itam pour dimbali xale yi. léegi dama seetlu ni ban appel nga war a mën a def pour gars yi mën a dellusiwaat cosaan delluwaat fonkat liggéey bi fonkat li nga xam ne mooy fecc ndax de fecc dafa am doole ci Sénégal boo xoolee bu ñu naan culture Sénégal moo tax ñu naan culture parce que bépp dajeeku fi ngi am na tukulóor am na séeréer am na joolaa am na lépp maanaam ban appel ngay def pour euh, gars yi dellusiwaat euh, sukkaliwaat danse bi. waaw man li may kii ñaax rek mooy sama mbokk artistes yi fi bàyyi xale yi ñu fi bàyyi ñu bëgg a jàng ku mel ni man bu ñëwee di organiser lu mel nii pour ñoom la xam nga dama ñëw jëlee ay nit dëkk ak dëkk ñu ñëw fii. ba pare ñoom ñiy ñëw di jël stage bi dama leen di jox ku nekk paas loolu yëpp sama xaalis bopp la gouvernement amu ci xaalis joxuñu ma dara sama xaalis bopp laa leen di dimbale. Ehm, ma leen di wax ne rek euh, parce que yaa ngi gis ñi ngi répété fii ñi ngi joxe cours yi fii mais am na ñu nekk feneen di répété ci ginnaaw di tëgg te loolu warul parce que boo amee bu ñu àndee ay professeurs yu bees bu dee pour une semaine la rek ñoom war nañu mën a aj seeni répétition parce que ñoom li ñuy def at bi yëpp ñu ngi koy def war nañu am matirité boo xam ne dañuy aj seeni gojaas ñëw jàng lu bees loo xamante ni dina leen jëriñ bu ñooñu demee mag parce que ay ñu am xam-xam ñoo ñëw jóge fu nekk ñëw di leen jàngal tey Casamance bi ak jémbe euh, bi Issa Sow ja jàngale ñoom buñ ko jàngoon mën nañu dem créer ci leneen yóbbu ko ci seeni bale créer ci leneen loolu laa vision boobu laa leen di jox chaque fois pour ñoom ñu ñëw jàng fii yóbbu ci seen bale bu ñu amul Euh, programme Casamance ci seen euh, programme mën nañ ko fa ajouter euh, xam ne ah lii lañuy jàngoon fii semaine bi yëpp jàng nañ fi quatre fois Casamance fecc boo xam ne pour waa Casamance la ñu créer ko ci seen bale am benn bale bu bees xam bu ñuy créer wutal ko costume yooyu yëpp xam mais. ba léegi ñoom gisuñu sénégalais moo dëgër bopp nag quoi parce que ñoom boo leen di woo ci dara balaa ñuy ñëw yow nga bàyyi loolu ñu naan non pourtant diw doon na ko fi def nangam nangam mais ñun ñu ngi woon fii daaw ñu ko kii xam ñun neexuñoo dimb da ngay ñëw pour dimbali leen mais ñoom beneen idée seen idée bopp la ñuy demee te idée boobu baaxul. ñu ngi bu baax a baax baax a baax initiative bi ñu joxe rendez-vous peut-être xam naa ni samdi waaw waaw samedi ñoom lañuy jouer fii Baaw Bakalama ñoo fi jouer entrée gratuite la euh, na adduna yëpp ñëw seetaan Bakalama doon na ñëw bale boo xamante ni nii cosaan la ñuy fecc cosaanu Casamance lu rafet. Euh, cosaanu Sénégal yëpp dañ koy fecc waaw da ngay foog ne ñoom Casamance rek lañu mais bu ñu demee si tukkulóor nga foone ay tukkulóor lañu bu ñu demee séeréer nga foog ne tukkulóor ay séeréer lañu loolu mooy njàng parce que ñoom dañ koo jàng nangoo jàngi leneen bañ yem ci seen ceebu jën dinañu lekk maaf ba suppu kanja domada moo tax ñu mën a taxaw ci kaw seen tey ji euh, toujours su Dakar instant ñu ngi nii taxaw ak euh, Khady Malal Badji ñu koy wax yaay chorégraphe ak institutrice de danse yaay lo wax ci journée bi nga xamné moy festival ndaje té li nga joté a légui légui nga expliquer ko ñu lu mu doon. Wa ma ngi kontaan seen way fi di leen wax na man Khady Badji laa comme ni nga ko waxee ñu gën ma xamé ci yaay boy jaar école des arts dafa 5 ans am diplôme d'état di voyager nag un peu partout dans le monde ma ngi dem États-Unis fu nek un peu partout dans le monde. euh li ma joxé tay festival ndaje daf dégg damay damay féliciter papa Pape Ndiaye mi koy mi ko initier parce que mën naa wax tay ancien danseur bi ci kaw ñëpp ñëpp voyager nañu. dafay baax ñu dellu si ñëw jàngal xale yi fi ne suñuy rakk ndax américain dañoo mën fecc léegi bu ñu moytul fii ak 10 ans américain ñoo ñu jàngal fecc wala ay européen kon festival bi li ko Pape Ndiaye illustré macha allah dafa baax ndax day jàppale xale bu baax a baax di kontaan li joxe tey lenjeng laa joxe lenjeng mi ngi gone mi ngi jógee Gambie ak Casamance waaw ñoom ñoo fecc soose yi on voit que ni pays yi difficile pour sénégalais yi mais américains ñom dañ ko def comme ni ko waxé légui légui normalement man damay faral di wax ne ku wacc sa and and bo dem fekk fa sa borom té lolu ban ñaax nga ban ñaaxat nga ci amaat pour jeunes sénégalais danseurs sénégalais ñëwaat delluwaat suñu cosaan ban ñaax nga léni di ci ban wo waaw li ma di ñaax moy ñu dugg ci euh ñu ko té sax ñu dugg ci association yi ñu dugg ci compagnie ñu dugg ci groupe de danse yi jang fecc. parce que ni ko waxee fii pas boo fi jox américain da koy fecc normalement ça veut dire que américain ñoom suñu turki dañ dañ ko bëgg te ñu ngi koy jàng bu baax ñu ngi koy jàng bu baax comme ñun doomu africain dañoo war a jàng suñu culture dañ ko war a jàng rek balaa moo réer sincèrement macha allah dañ ko war a jàng. gis nañ ni paa yi moom ñu koy répété naajement euh, léegi damay wax ni ban appel ngay def ngir samedi gars yi mën ñëw massivement pour sen spectacle bi nga xamné yeen wa waa Bakalama yeen mom ngay def. wa di wax rek nañ ñëw nañ ñëw seetaan parce que Bakalama bu joué spectacle manam day dem pure et dure tradition bi jang ko gëstu ko ba mu leer kon ñu fi def fay leer nañ. maam ñu fi ku bëgg jang xam-xam rek na nga ñëw seetaan si spectacle bi te tamit cours yi des mooy cours cours Pape Ndiaye cours Rich Nia ñoom Ibou Mbaye ñi ak ainsi de suite ñëpp lañ ko ñëw jang ndax dañoo war a jàng ñu jang mu leer ba nga xamne tay tey bu ñu waxee A ci fecc rek mu ko def A bu def B defal A. ñi ngi tagato si li nga xamne moy mooy seen émission art et culture comme gars comme on vous l'avait promis l'information en temps c'est sur Dakar Instant kon gars on se donne rendez-vous samedi prochainement pour le grand spectacle avec le festival Ndadié.